jërëjëf euh, jërë ngeen jëf euh, Passepartout Aliou Ba euh, Maysa mbay jërë ngeen jëf internet ak auditeurs yi déglu RFM 94 point 0 la rajo de tout l' actualité yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye. Mm-hmm. Bane naka nga def. sant rek ñu ngi sant bu baax di ziar Ndiaye di la ziar. Mm-hmm. di ziar Passepartout ak booy baax waaw ak Boy Maysa <laughs> di ziar ñi ci réew mi di déglu. ak ñi ca bitim réew di leen ñaanal jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci xel yi xol yi ku ko bëggul yàlla na la yàlla forcé jàmm ji ba jàmm ji foo tourné rek mu nooy nepp ak jàmm nga koy dégg maa nga koy gis waaw am na solo min yaa rabbi amin waay ñu ngi lay siyaar Njaay maa ngi delloo siyaar bu ba Ababacar ba yaa ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax alhamdulilah ñu ngi sant waa Sénégal ñoom ñëpp di leen gërëm mhm. di rafetlu ni ñu àndee ak ñun ci ci xalaas waaw wóor na moom. da bëgg ñu xool leen. wala ñu yow xoolal baan ba pare. ayca baan. Euh, dafa am dafa am sunu benn maire bu bu gaañu boo xam ni euh, moom feebaram bi moom su dégluwul su dégloo xalaat sax day su ko nag dégluwaat. lu wóor la sunu benn maire bu tudd maire aan Marie Badji ca Ziguinchor. dèjà dèjà mooy yaayu Monique Gomis ca Ziguinchor. dèjà dèjà dafa wàccub liggéey bi ci guddi sunu yaay jooju nga xam ne heure bu xëyee danaan capté leen ma xalaas. su ko dégloo tàddi journée boobu yëpp day tane. dafa wàccub liggéey yàlla na ko yàlla xaaree. waaw nga ni. moo bëgg a xam ma ni euh, xalaas gi fu mu toll. lan moo fi actualité parce que man dama absenté. waaw damay bañ ñëw di jéem a indi benn condition nan nii la war a demee. non non noo ko noo ko yëgee rek damay déglu rek lu ngeen ma jox rek ma jël. waaw noo ko yëgee rek. lu ngeen ma waaw lu jox rek ma waaw waaw. toll parce que mënoo absenté ba noppi ñëw euh, damay xool fu yëf yi toll fi mu toll nii. waaw démb ñu ngi woon ci dañoo nekkoon ci benn dëkk bu nekk tudd Djilor. Mhm. am benn waay benn femme boo xam ne dafa porté woon am ex jëkkëram plainte ni ko danga ngaa violer sa doom. maanaam deuxième doomam bu jigéen. ba ñu jàpp waa ji tëj ci kaso bi ne ca enquête mandat de dépôt ko ma nga ca kaso def na fa at. léegi ki ñu tëj ca kaso ba magam bu euh, frère dem defi test nii nañ def test ADN xool ba xam baay bi moom viol bi moo ko wala doom ji moo ko jur. Mhm. liñ ñu koy ji ndax moom la. Mhm. mais ba mu demee ca cabinet ba déposé foofu ñu def test ADN yi trois mois ngi nii jotul résultat. muy attaqué cabinet ba waaye dafa am yeneen lu ca yaayu xale bu jigéen bi nga xam ne moo porté woon plainte ex jëkkëram jamono jii mi ngi ci kaso bi. Ah njaay laaj ma lu ko yóbbu. ci kaso bi. xale bu jigéen bi nga xam ne moom lañu ñu moom moo jin papaam viol ak ëmbal magam bu jigéen dañ koo ëmbal ci ginnaaw gi maanaam bi pap bi ñu tëjee papa ji ba pare ah, ah. magam bu jigéen pap ki ñu taawam dañ koo ëmbal yaay ji nga xam ne moo porté woon plainte ex jëkkëram ànd ak doom ji ci ay wali waa wax doon ko yàq ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi non xale bi dafa mujj dee xale bi dafa dee dañ koo doon yàq mu dee ndaw saang ci kaso bi jamono ji donc waajaa ci kaso bi ka ko woon porté woon plant jiiñ ko fi viol mook doom mm, mi ngi ci kaso bi am nañ seen taaw bu jigéen ba doon yàq biir ba ci li waa wax faatu na yàq biir ba waaw léegi nag frère ki nekk ci kaso bi. doon dem di wuti ay test ADN. waaw ba tey mënu cee jot. moo ñu indil xibaar bi. wax na démb li ci des a ngi noonu. acca. bokkul ak sama dossier frère bi du sama dossier frère bee ko fa yóbbu parce que man j'attends les bu test ADN yi c'est pas sama frère bi du loolu bu su dossier sama frère bi mook loolu. waaw lu gën a garaaw lu gën a compliqué loolu la. moom xam nga da maa posé benn question ne ma ndaw si nan la tudd ak numéro téléphone am. ndaw si lan moo ko yóbbu prison. ndaw si li ko yóbbu prison ma ne la ndaw si ma nga prison ba ma la que sama doom dafa dee sama doomu frère la sama frère la ngi prison ki nga xam ne moom la tuumal moom la papam biiral kooku moo décédé moo dee moo dee donc bi mu dee koy suul ma ne leen non ba lu ñu waxuñu ñu ma ne leen non ba lu ñu koo suul dinaa xoolee xale bi li ceema lu ko mais dañ doon yàq biiram te moom moo doon yàq biir bi moo tax looloo tax moom ñu ko moo ma ne dafa nekk dossier yoo xam ne moom li ko yóbbu prison doomam bu jigéen moom ñoo tax mu dem prison waaw doomu bu jigéen bu mu doon yàq biiram moo tax mu dem prison moo tax ñu téye ko actuellement ma nga Fatick. prison maak moom ñoo bokk papa il n'est pas là je défends ses te man maay taawu suñu kër donc je défends ses intérêts défendre ses intérêts au niveau de sa famille la ay waa këram ak yooyu. tuumal nañ ko kenn ki ki décédé petite sœuram la ñu tuumal ne moom moom la moom la moom la violé ki décédé ni actuellement moom la ñu moom la petit frère la ñu tuumal. ne papa moom la moom la violé ci beneen dossier la boo xam ne beneen dossier la boo xam ne di nga ci wax di nga ci wax parce que nee naa la bi ñu ko jàppee léegi ça fait toujours vingt jours ma nga prison doomu doomu doomu kooku sama doom la donc doomu kooku su dee te man famille bi woowuñu kenn nañu diw feebar na fi ba dee looloo tax ma ne looloo tax ma wax la ne beneen dossier bu nekkul beneen dossier la benn famille la woon sama rakk takk am fa jabar xam nga rek situation ñoom ñaar jàppal bal kët kët mu am ay kata seen biir kata kata ba ñu tas kata kata ba ñu dem fi tribunal ba ba ñu divorcé ku nekk di dox sa dox waaw ba mu yeewu suba teel tuumal ne ko yaa ëmbal sa doom ba ñu jàpp ni sama frère bi. doomu sama frère sama doom la donc sama doomu frère bu dee ñun famille bi famille bi war na nañoo yëg mais du kenn ci ñun koo xam ne yëgal nañu ne kii dee na du la yeewu suba teel ñu ne dañu koy suuli maa opposé wu ne duñ ko suuli foog ma xam lu tax ñu suuli ko. yaa ngi bëgg xam lépp nag ñu mel ni xaj ak muus jàppante histoire ba xaj ak muus bu amee lu fa am biir am fa ba biir bu toog ba nekk ci presque neuvième mois ñuy soog a porter plainte di jéem a coow loolu yow yow loolu jaaxalu la yow kenn ko koo nëbb mu ne yow yegg ci yow kenn du yëg euh, mais si yeggee ci yow bu kenn yëgul euh, trois mois dina war a mun a feeñ surtout ci xale soit da ngay feebar wala foog mu feeñ mais de pense que euh, neuf mois yi sori na de pour mun a porter nit ki plainte ne ko yaa def lii war naa dem ca laboratoire bi bu ma demee ci laboratoire ba le le la m'entendra su ma la ko waxee rek gëm ma waaw mënu ma koo fay trois cent cinquante mille wax ju neex sax mënu ma ko faa am bu ma bu ma demee waaw bu ma demee il me reçoit comme un malpropre dem moom laa ko bëgg a laaj tey moom pour qui il se prend bi ma fa demee di casse casse ñu ne ma le docteur quand je l'ai reçu déjà moom ni ma recevoir laa xam ne kii daf may fontoo moi moi je viens peut-être que euh, euh, pantalon chemise laa soloon costume ma wala ma solu ma grand boubou bi ma ñëwee bi ma annoncé bi ma ñëwee bi ma bi ma gisee ci salle de prélèvement la ma recevoir su koo xam ne yaay yaay directeur laboratoire bi mu am un litige ci salle de la ma la ma kii ma génne kii ci woon ko mu lire ba pare tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit bon est-ce que sa numéro téléphone bàyyi nga ko ak gars yi ci buntu ba dinaa la woo ngoon mais man mi ko ñëw seet en tant que directeur bi ñëw wax ko bu jox ko kenn mu lire je pense que su fekkoon ne doon na ma wooyi moom ci boppam mooy jël sama numéro téléphone mais du ma ne ndax bàyyi nga fële sa numéro téléphone déjà avant ma fay génn rek. xam naa ne kii du ma woowaat mais dama koy poussé dama koy poussé ci ay erreur ba léegi daal koy poussé parce que xam naa ne fu ne gis nga bu ma fa tàkkee du police du gendarmerie ku ñëw du ma mënal dara parce que su ma waxee ñu wax dinañ xam ne man mii j'ai raison waaw mënuma laa fay trois cent cinquante mille nit kaa ngi kaso yow résultat yi kii même bu nekkoon ay machines yuy panne même bu nekkoon ay machine yuy panne du mel ne ba léegi trois mois ngi ni ma seen machine yi panne na pour defi ay analyse xanaa dem na Paris dem dem dem ba ñëw trois mois je ne dis pas mais nooy maxu dugal ci Google bi nga laaj ko test paternité résultat yi nu muy demee il te dira que c'est vingt quatre heures quarante huit heures au pire des cas huit jours quand même attends soyons sérieux aussi quoi dégg nga lool. Mhm. affaire à suivre parce que ndaw si mi ngi ci maga fa maga maga téye nañ ko. liñ liñ koy tuumaal mooy yàq biir mooy jigéen doo bu jigéenam. boo xam ci prison bi. waaw femme waaw gaa gaañu na euh, taaw ku jigéen ka. Mm-hmm. mais deuxième doom ji ci boppam moom moo ànd yaayam jiiñ pàppa ji ex papa ji ex euh, jëkkër ji. très bien loolu loolu leer na. leer na ñu jàll ci leneen. jëlaat. Hmm. ah ci leneen rek. ci leneen waa lii nii dañ koy akoy parce que affaire à suivre la. Mm-hmm. waaw mm-hmm. affaire leneen lan ngeen bëgg ñu jàll. beneen xalaas rek damay bañ ñu nekk ci démb ak tey yàgg ci nii te jeex na. voilà. massage prise la li Ndiaye. <laughs> ba ba ñuy tàggoo fii lan laa la wax. ñun ñaa ngi jël xale yu jigéen yi di leen dugal ci appartement yi di leen jaay comme ni ñuy jaaye ay masque comme ni ñuy jaaye masque mm-hmm. ngeen ma loolu foo ko teg. waaw xale bu jigéen bii dafa jóge seen dëkk di wut liggéey. Mm-hmm. massage plus. di wut liggéey mbindaan. mu ñëw fii ci école normale am na fu ñu joxee jànq yi mu dem fa am ko woote ni dafa soxla jànq. Mm-hmm. ndaw si ba mu demee lam fa fekk 15 jours la fa liggéey waaye jële dafa mujj jële ëmb 15 jours la fa liggéey génn bàyyi quelques jours après mu ëmb xale bu jigéen bi bim mu demee ba ci biir la xam ne fii salle de massage la ba pare dañ koy jaay fa mu doon liggéey fa mu doon tëdd ak lu toll juróom ba juróom benn góor par jour hmm? mettez Zeyna la princesse tey émission bi may def Ndiaye damay wax waa brigade des mœurs ñu déglu ko te su fekkee lii may wax su ma ci pare dama bëgg ñu convoqué ma. pour ma yóbbu leen fa affaire bi am. ah déet yow kay defal li la. non non Ndiaye war rek. déedéet déedéet am nga man am nga war. non non man jour yi a absent du ma ko absenté jour yi ma warul absenté mais lu tax baan bàyyi ba xam nga lu tax convocation tamit. non non du loolu. dañoo lii yu mel nii suñ ko defee émission. waaw autorités yi ñuy déglu. dañoo war a wax mii li muy wax dëgg la. fan la nekk lii ngay wax nii fan la nekk. ak lan moo fa xew est-ce que dëgg la. dëgg la à la preuve yi dëgg la. fii dafa xibaar yi. dafa war a wér te wóor. mais mënu waruñu di def xalaas nii rek dem affaire ñu dem lii day yàq dëkk bi njaay. waaw d'accord naa loolu mm-hmm. lépp d'accord naa mais xam nga lan laa àndut ak yow mooy su ma paree fii nañ ma convoqué nañ ko woo xanaa nañ ma woo convoqué bi mooy woo ma ni ma lii ba leen ak ñoom ñu def li leen war yow nekk ci li la war rek. ah baax la waree woo dinañ la woo buñ la war tawoo ko. waaw ba tey loolu sa devoir ah, woo ko voilà. man su naan ma na ma brigade merci wala na ma division spéciale eh, cybersécurité wax. déedéet dama woo bi woo bi xam nga ni ma ko waxee. non non dafa am dafa am nu ma ko waxee. ni ma ko waxee mooy lépp bëgg dëkk bi aw yoon mm-hmm. su ma woowul it dinaa leen yóbbul li nga xam ne moom laa yore. kay waay Ndiaye. citoyen noonu lay def. Ndiaye ndaw soo ko dégloo. Ah. di nga ne ma demal léegi na bala nga ciy sori. waaw am na yu mu wax yoo xamante ne ji waxin wi xaw na ñagas. xaw na xaw na xaw na diis ñu ngi ciy ne mënee mënee su ko mënee su ko dindi ndax après doo xam li muy wax. dafa diis ci yéen man de Ndiaye daara diisul ci man dégg li ñu déglu ko. ay ca. mooy 14 juin lundi boobu 14 juin ko fàtte ci laa jóge dem école normale laay wutee liggéey chaque fois foofu laay wutee liggéey ma dem mu dem mu nekk foofu noonu mu am ku woote mu ne moom jànq la bëgg après ñoom ñu paas ma ko ma waxtaan ak moom ñu ne mënuma waa sama kër defar appartement moo fa nekk ak bàcc ay ay kii bàcc ay charvette moom moo fa nekk loolu mooy liggéey bi te sax ñaar ngeen di nekk yéenay bokk liggéey bi après ñu waxaale si prix ba juboo après si ngoon bi ma ne ko waaw kon su ngoonee man dinaa ñëw mun ma waaw boo ñëwee ba ci Banque Africa bi après nga woo ma noonu laa def ma quitté suñu kër ay quatre heures laa suñu kër dem ay 17 heures et quelque ma yegg ma yegg Nord Foire ma woo ko ne ko egsi naa ci banque mu ñëw jël si ma. bi ma demee aussi si kër ga dafa ma ne ñëwal demal ci kaw terrasse nga tax nga toog fa bi si kanam parce que sama kër daa am ay gan te nit ci dañoo bëri wax. ma ne ko waa d'accord après ma yéeg kaw terrasse fa laa nekk ba ay 19 heures laa ko waat ma ne ko ee eh, léegi timis jot na te man timis dama fekk si kaw après si la ma ne waa kon léegi mën ngaa wàcc ma ñëw dugg si bi ma dugg si kër gi dama bi ma dafa bizarre bi ma dugg see maa ngi ko fekk mosor rob bu bi di kaa ko kenn xamul lu muy nuroo jigéen après ma dugg si mu ne ma waa dugg si ma dugg toog ci saa bi ma tëj buntoom mu ne ma waaw fii de mooy kër gi mu ne man ndax def nga planning mu ne ko waa lu si yoonu planning rek liggéey nag mu ne ma non ndax fii sama kër moom sama de laa fi te day am ñoo xamante ne dañuy bëgg a def. kóor yi ma ne ko man ak yi waxante wuñu lool ma ne ko man loolu du ma yëkkati ma ne ko loolu bu ma daan fay un million par mois sax ko jaralu ko parce que man doomu jullit laa man xaw ma loolu mu ne sama kër de loolu moo fi nekk. sama kër loolu moo fi nekk après nag jàgg ba maa fekk ma dem di wax ak moom xam nga moom mën waaye yow di moom kii kon lii mooy liggéeyu kër gi mu ne ma ah lii de mooy liggéey bi man ko yow yaa ko accepté mu ne man de maa ko accepté waaw daf ma woo ma ñëw ba si kër gi ñu mu wax ma lan mooy liggéey bi kër gi ñu waxaale ma juboo say kàddu waaye man ko ah man de waxuma woon lii suma ko waxoon man xalaatuma ko sax dugg man ko lii du sama liggéey xam naa ne sa xol ne yow waaye su yóbboo nga naxtaan ak moom ba génn si sinon boo fi nekkee di ko jëlee xàddara ak affaire dina la dugal ci ay problème nga nekk fii nag lu ko mën a gérer te moom moo la ëpp moo la ëpp kii fu muy dugg ki génn dafa capable soo yóbboon nag nga def ak très attention ci moom bu ko wan nee liggéey bi neexu la defal ndànk ba kiroo ngay arrêté dem mënu ko wax baax na après ba liggéeyee deux jours trois jours ma ñëw juste pour ne ko man de dama dama bëgg a dem suñu ma ñëw ne ko damay bëgg a dem suñu kër jëli sama daa lu ma fa a gérer sama quelques problèmes lu ma war a gérer ma dem kër nga ñëwaat rek bëggoon su ma bàyyee rek ma dem ba ñëwaat mu ne ma sama kër loolu amu fi fas kanam li te tamit ma dem toog ba wax ak kooku na benn jànk jànk bi nekk fii bu ñam di metti di da kaa jàpp guddi googu duuk bu mu la na woon na kër gi man maa si jàpp kooku fanaan ba set mu doog a dem. ma ne ko ah ay dóorante moom duñ fa yegg man ak moom mu ne dafa capable parce que moom seen waxtaan yëpp day naan da kaa waroon jëm paaka da kaa waroon a def lii affaire yu bon daal lay waxtaane moom. ëmb bi li seen nag man xalaat téye ko moom lii di sax ma ko gënal fuuf fuuf sax dee moom ko gënal fuuf xalaatuma ko téye man kay lu ma koy dindiloo kese moom laa bëgg donte xam naa li si nekk de danger yi ci nekk ak bàkkaar yi si nekk yëpp mais aussi j'ai pas le loolu kese la xam ne moom laa mën a def parce que lii ne gi ma moom mu dem kakaw fenn fenn fenn fenn du sama entourage kenn ku ma bëgg mu nekk au courant lu ko dindi kese moom laa bëgg bëgguma si leneen. Ndiaye xale bi pareegul de. pare dafa mel ne pareegul kay. déglul mën na koo def beneen jigéen ku mel ni man koo xamante ne innocent la koo xamante ne xamul loolu noonu nga amaat lii parce mu ngi naan am na keneen ku fi xamante ne tamit mu ko daa amoon daa ëmboon ko waxee dafa lii si la ko def mu bàyyee ko imagine toi ndax lan ndax loo loo xamante ne mënoo koo comprendre bu fekkoonte sa décision bopp la yaa ko choisir def ko man loolu du ma si daw dara kon dinaa ko assumer jusqu'au bout mais instant yi loo xamante ne yow mënoo choisir kii mooy seen papa doom loolu tamit téye ko loolu tamit kenn mënu ko kenn mënu koo téye bi ma demee noonu commencé naa liggéey bi kay dama doon def massage dama doon joxe sama bopp aussi andil lay fa ëmb bi di te dama doon protégé wu aussi mais produit bi moo doon toj après des fois ngay defar ni rapport affaire bi day mujjee yàgg ba affaire bi toj wala boog affaire bi sumeeku sax affaire bi des ci yow des ci sa kaw bi may dem foofu noonu yóbbaale wu ma ndaw parce que man am naa doom ba pare man am naa doom ba pare waaye instant yi nekkatuma ak jëkkër mais am naa doom ba pare mais terewul taxut ma ñëw pour yàq sama bopp di bazarder sama bopp déedéet ndax su ma ñëwoon bazarder sama bopp day jaay sama bopp nekk kon xanaa damay def planique comme ñëpp mais defuma planique que man nekkuma ñëw ma pour jaay sama bopp wala pour joxe sama bopp affaire yooyu noonu damaa ñëw pour juste pour liggéey daan sama doole ñaq sama yëre ñu sama doom ak samay waajur parce que ak lu mu ndaw ndaw aussi bu weer deewee ci ñoom laay bokk ak sama salaire waaw fekk na nag lépp leen di de day doon lu lew kooku noonu moo tax ma jëlee fa dama doon joxe sama boob bu baax sax dama ko doon joxee journée yi mën naa doon tëdd ak ay góor loo xamante ne ay quatre personnes wala ay cinq personnes ci même jour bi mënoon naa ko di def. moom Mia la tudd Mia da lay woote wu fee ba xaw ma nag na ma lay tudd ne Mia daal la tudd Nord Foire la dëkk yore salon de massage Mia la tudd numéro mu nekk man. waaw moom day jaay boo day joxe boppam parce moom loolu mooy liggéeyam xam naa loolu la a xam loolu mooy liggéeyam des fois bu amee yenn client moo koy gérer boppam mooy defar boppam massage bi mooy defar boppam duñu ko jox ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy jànk yi day joxe boppam kay day joxe boppam bi baax na ne loolu mooy liggéeyam loolu la xam. moom daal xam naa ne 30 ans yi dañoo mën a ëpp ay de plus lay am ay xale jigéen la nii rek xale bu li may jànk yu mag yi rek jànk yu mag yi naa yooyu ay 30 ans de plus yooyu lay am samay mbokk kenn xamu ko si ñaan muy yàlla kenn kenn kenn si ñoom xam ko si damaa toog fii xaw ma nan laay def moo taxoon ma woo grand boobu noonu nga xamante ne moom dañoo xamante ni wax dafa neex yàlla damaa jafee comme rek ma jafee comme sama mag tellement ñu déggoo sa ay kàddu lépp moom laa woo di ko ko expliquer day kii day yomb trop man ko man instant yi man garde doom bugguma ko bugguma ko parce que du sama arrangement te bugguma aussi sama benn benn benn mbokk sama entourage kenn xam ko ne xam si xam ne man dama doon liggéey genre boobu noonu rus naa ko sax wax ndax loolu du sama cër benn yoon cër benn yoon yore doom en plus su doom naawle la vraiment jànku boobu arrêté na mais kooku maa ko njëkk a arrêté moom bi ñuy waajal tabaski moom ci lay arrêté mais ba pare bu moom jël ma woo di ma naan damay arrêté ma ne ko man heure bii sañ ngaa génn kër gi naan dangay dem doo xaar ba suba wóorul nga génne dajeeg benn dem moo gën a wóor parce que moom mu ne ma nekk ak moom ci kër gi sax moo wóorul kii dafa capable ay guddi la kooku quitté foofu na moom tamit instant yi kay ñeneen la fa yor ñeneen boo fa demee nga fa fekkee ay yeneen jànk góor yi fa daan ñëw ay normal ay góor yoo xamante ne ñoo yore seen i ay jabar ñëwoon naa ne ñoo def si massage def si seen ay rapport après dem seen yoon. xaalis bi nii la yéen parce que maag moom dañoo waxaale ba soixante dix mille mois bi moom la ñu waxaale woon soixante dix mille ba mu ñëwee nag ñu wax noonu ba nopp mën na affaire de rapport affaire yooyu mu ne ma waa koo defar rapport d' après da lay jox cinq mille tellement moom nu mu bizarre rek ma xamatuma sax nan laay def après des fois nga def trois personnes wala quatre personnes mu ñëw jox la benn cinq mille de man damay noppi bàyyi ko si biir boobu sax laa si wuréewul de. Hmm? suba dinañ ci continuer. yaay hmm? Hmm? ndaw si kenn àndul ci li mu def. mais jànq yi di wut liggéey ndakaaru dañoo néew doole te dañoo yomba détourné. léegi nga ne affaire bi jeexagul. non jeexagul. suba dañ ciy ñëwaat. dinañ ci ñëwaat ak yeneen révélation waaw. te ñoo te ñoo bàyyi bu suba ñu ñu ñu kii ci ñu ma ci bëgg xam ne nii. yu mel nii. dafa bari ci dëkk bi. moo tax ma ne woon démb. immeuble bu ne nañ fa teg benn policier wala benn gendarme yu mel nii ñoo bari ci dëkk bi torop torop torop torop te képp koo xam ne am nga doom bu jigéen. suba il faut ma ñëw bul négliger lii. alors président suba il faut ma ñëw catégorie président ci kododo fe kodo barak san dakar usance zone univers zone victoire gori présidence de la la para pimni résidence président de la bi nga mooy demeure historique dans la carte Dakar Plateau capital Sénégal construit en 1902 sama de pale waxoon yàgg de la ay lalla mu nekk la plus officielle du gouverneur général Afrique occidentale AF le porcelain Senghor Dia 1964 ab ju kat fede wala 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñaar fi ñu xaar ba xam kii woon bëgg jël président ko kala roor fa lew de salaamaaleykum ah man na Ilimane Dia yow la maa ngi hootee fii ci Saloum Ilimane Dia ci Saloum waaw ilimaan lu waral sa de xam nga ba taximaan la waa dama mujjee dellu dëkk ba ndax xamatuma mbir yi lu muy ndurool mbaa jàmm la ah waay man man kër saa xam nga sama buntu kër gi ma gaare ah xam nga ta kër Massar laa ko gaare aha tëdd sama biir kër dinaa subaat si di taw aha taw xàll bopp yëpp tooy xëpp aha man daal ba ma yeewoo gis suma taxi bu fàtt fañ fi mu gaare nga yeew da ngaa gaare sa taxi nga yeew gisatoo taxi bi fi mu gaare. taxi bi gisatuma xam nga yaakaar doon ko sàcc nag te taxi bee ngi ci kaw ndox mi di di fay di dem. fi ma ko xoolee sama xel ci Titanic la dem. sama xel <laughs> ci Titanic la jiw ci def ko lépp fa fa fa la may féete léegi. mais mbaa jàpp nga taxi ba da ngay jël gaal. mbaa jël nga gaal topp taxi ba. taxi bi daa gudd kaw la téere si gannaaw ma lan. fan la. kaw la téere si. xanaa taxi bi kon daa romb mbënd mi dem ci géej gi. daa romb mbënd mi jàll ci biir géej gi. di daw taxi la ñu wax maa ngi nii Kaolack mu jee taxaw di ko kat maa ngi nii seen ko di ko bu daw bi yow fan laa jëm leer bi ni moteur rek lépp yàqu rek. eh eh. waxal ma président dégg li métti na waaye dañuy gëstu waaye. ay sëñ bi ah lii de doy na waar doy na waar ndeysaan <laughs> barki barki dem rek maa maa maa ngi gis ku ci ñàkk aw fasam. ah man man fasam maa ngi ñëpp li doy na waar eh, topp fàll di daw di rek ah fan koy waxee ji ah ah muñ rek waaye ah, yàlla baax na ne mbënd mi moom fépp la waaye yàlla yàlla bayal sa tool mbënd mi moom fépp boo xoolee même ba ci réewi bi sax mbënd mu méttee fay yam waaye ñoom jël nañ ci ay matuwaay léegi bi assurance du la fay dërëm du la fay dërëm ah eh, ci di daw ba dee rek baax na léegi bu presse ñun dana a xaru sax. waaw président bu amee buum mu abal ma ma. baax na naa ëpp def léegi bàyyil bu presse ma ne léegi sëñ bi. train bi mu ngi daw. ma ni sëñ bi léegi waa bu président train bee ngi daw ma toj ko. ma ni di ëpp naa ëpp naa def dégg nga ëpp naa def sóoraaleel njaboot gi ëpp naa def ma ni. bàyyi ba xàcc boo gis wërsëgu waay la dégg nga. waaw xàcc boo gis wërsëgu waay nan nan ñaan rek nan ñaan nan ñaan nan ñaan. ci biir dëkk bi rek. nan ñaan dina ci jël ay matuwaay dégg nga man danaa ko wax. sonn nañ trop maa ngi ak sa numéro bu président ñëwee dinañ fexe nga am beneen taxi dégg nga waaw loolu moom du mbuur mu ràcce la bu ñëwee dana dana gënoon. ayca baax na jërëjëf jërëjëf ayca jërëjëf ëpp naa def ayca ëpp naa def jërëjëf jërëjëf votre correspondant peut-être urgent pour le moment veuillez appeler ultérieurement ayca taxi ba fii yéen RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Madame, Monsieur, bonjour. L'heure du Flash Info à la présentation. Georges Détiédio, la technique est assurée par Aliouba. Direction Thiès, euh, retrouver Cher Anta Diop. Bonjour Cher Anta. Euh, euh, une décision du tribunal qui était attendue ce matin, décision sur euh, le litige foncier qui oppose Serine Moustapha Sy à Serine Maudossi. oui, euh, très attendu, le litige foncier opposant Serine Mustafa Sy, euh, le guide des Moustachidines à Serine Mordesi. Et finalement, le juge a ordonné une expertise pour euh, le terrain et il même demandé au chef euh, du cadastre régional de, de, de Thiès euh, de faire cette expertise de concert avec des techniciens. Il lui a même donné un délai de 60 jours pour déposer son rapport. Mais pour le moment, ici à Thiès, toutes les par les forces et on voit même des chars de combat et des génies bien armés pour dire qu'il y avait une tension qui se dessinait au niveau de Thiès. Même à Taon aussi, c'est le même dispositif euh, qui a été pris. Euh, donc nous, y reviendrons certainement dans nos éditions de 12 de 13 Georges. Merci, euh, cher euh, Anta Diop. La levée du corps de Hissène Habré est prévue euh, ce jeudi à 14h à la mosquée omarienne. Levée du corps qui de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff. L'ex-président tchadien est décédé euh, mardi à Dakar des suites du Covid-19 à l'âge de 79 ans. Un atelier de partage de réflexion